xam nga peex comme mbër la woon. wax nga nga nettali ma ban combat. <coughs> mos <coughs> daan ci sa combat yi. barki am na ko la ko message. <coughs> ban combat la. mos daan de dégg nga koo daan. non non kay eh, eh, dama bëgg ñu discipliner tuuti ndax ñuy seetaan. 45 combat léegi yow peex laa laaj yéen laaj ma ne man peex laa laaj peex. wax ñu ban combat moo gën a métti ci sa combat yi ak li ci daj. Euh, bi laaj nga ma loo xamante ni. lu am solo la. archive la lu garaaw. laaj nga ma lu ma neex. Mhm. bi tey laaj nga ma loo xam ne sama dund journaliste bu su ma koo laaj. waaw bi tey nee naa la journaliste yëpp dañu lay war di jox àllarba. Mhm. ndax li nga laaj nii dafa garaaw quoi su ma koy nettali sax ay temps sama rongoñ day tuuru. Mhm. bi tey dama nekk ci koñ bi muy gaawaan. waaw muy Kaolack ñu bëgg ma lool. fonk ma lool. di gërëm ki nga xam ne mooy Ibou Bambara mooy sant baax a baax bu mm-hmm. tolloon nag moom sax mm-hmm. ñoo xamante ni ñu ngi ma doon dàq waaw naa ma demal fii amoo doole ko affaire comédie lay rek waaw kaay dama lay tëggal combat mu mm-hmm. jógee gaar ba stop Médina ba ndar gu ndaw dox ko dem ñu ne ma Ibou génn ma toog di koy xaar ñëw mu ne ma ñaat laa lay fay ma ne ko loo ma jox baax na mën naa bëri rek jour boobu lañ ñoo njëkk jox xaalis bu toll noonu ndeysaan mu jox ma ko ma téye dem signature contrat bi jot ma ñëw ñëw taxaw xam nga rek jël samay musique dem ci benn paa Baye Serigne Ndiaye. Mhm. ne ko Baye Serigne Ndiaye a daan ma mhm. da nga may jox ma ko ñaari junne ak ñaar téeméer. Mhm. mu ne da may utal ginaar gu sëy ba tas. <laughs> ma de li ma lay wax nii dëgg la de. mu ne la mu ne la ginaar gu sëy ba tas. yow noo xamee ginaar gu sëy ba tas. moo ma jaaxal. <laughs> waaw eh, ginaar gu koy xamee. waaw mu ne yoroon naa fi seex ak tëng. bu sëy ba tas séq ba dee na maa ko rey. waaw. kon kon ganaar gi sëy bi tas na. ma ko jaayoo ma ganaar gu sëy kon ba tas. waaw ganaar gu tënju la. gu tënju la. <laughs> mu ne ma ñëw dajeeg capp sa filing. waaw capp sa filing nga war a daje. combat bu metti waa koñ bi yëpp taxaw. Mm-hmm. jour combat bi dimanche. Mm-hmm. ñëpp naa ma jéggi yàlla yàlla may ndam yàlla na yàlla may ndam yàlla na yàlla mère Binta a mère Mbaye Gueye maa ngi leen nuyu baax. Mm-hmm. yaay ñoom day aada ñu may su ma ñëwee génn nii di ngeebo ji ne ñaanal ma ñoom dañuy jooy su ko su ma ñëwee dëkk sama loxo rek mairie di jooy quoi ndax man ni ma yaakaar ne mairie jooy yi duñu maa bëgg wala leen nekk dañ maa yërëm <laughs> dañ maa yërëm maire bi ndëggee maire mbay ngay maa ngi leen nuyu sama yaay yooyu ah. ñëw taxaw léegi nag ñu dem ba stade ah. ca làmb jël laataa may génn laataa may génn suñ koñ ah. dig naa taxaw ne leen combat bi incha allah rabbi damaa bëgg daan mhm. mais li ma gën a marqué mooy benn grand boo xamante damaa bëgg te yàlla tax muy karamba mhm. karamba mel mu ñëw taxaw karamba karamba du karamba mel na de. karamba la tudd ko karamba mécanicien la day defar lay defar yi. Mhm. ñoom daaw dëgg daaw daag vie. Mhm. mu ñëw taxaw karamba ne rek karamba ñëw ci stade daggal doomam yeeg ñëpp. Mhm. may waa koñ bi am ñu may beeg ñëpp ñëw. Ibu Jaabi na ma karamba gi ne njaboot gi xanaa tey di nga daal. ma ne ko karamba mënoon naa toog rek dama yokk pression rek. man dañ ma daan may bee Ibu ma dama daan jox bee du ma ko jox suñu waa kër. damay dem jox ko ñeneen ne ñëw leen boo leen ñëwee nag bu ma gis da ngeen may yokk pression <laughs> ndeysaan mais yéen victoire. waaw mu ñëw taxaw génn ci koñ bi waa koñ bi jéeg mel ni mu mag. waaw nga Balla ma ñëw ba ci làmb ji ñëw ci biir. làmb foto làmbam normalement mi ngi ci YouTube bi jéggi siraat. taxaw. waaw ah na ma boo ma daanee. waa Ndargu Ndaw duñ reer. Hmm? Ibu Dia bi ne ma yow bu la daanee kon waa Gaawaan duñ reer wax ko loolu ma ne ko noonu wóolu ma ndax damay daanam <laughs> xam. yaakaaruma ndam man sama rakk ju ma bokk ndey ak baay Pape nee na ma kaayit may ngemb bu ne ma kaay mi cinq dañ lay daan man suñu waa kër ñoom njëkk a xam ne kii mbër. muy paree ak yow. muy paree ak <laughs> man. Ah, yow sa frère ñëw di paree ak man xam nañ ni mbër mi daal. xoolal ñu ñëw bi ñu ñëwee taxaw ci làmb ji nangam sax avant grand combat la ñuy bëri nag ak ñëw fuuy. waaw avant grand combat. Ah. arbitre yi sax man lañ faral. arbitre yi. làmb ji sëñ Babacar Mbacke bi ñu ko tuddee woon. ñu ko bëroo man la faral. ndeysaan. yaa ngi dégg ki tëgg làmb ji man la faral. ndeysaan ndeysaan. arbitre yi police yi yeeg ñëpp. yow lañ faral waaw billaahi wallaahi taala parce que yaa yor xoromu làmb nekkoon Kaolack. Uh-huh. man la faral. ñun ñëpp man xanaa ni nga duggee ni nga tuusee dafa neex ba gars yi bëgg la. maanaam gars yi dañu maa gëj leen gis ma créé bàkku bu garaaw gëj a gisee xam nga ne jéggi si raat na moon nañ laa gis a gisee rakkin ca raw rakkin. waaw waaw ñëwaatal ñëwaatal ñëwaatal ñëwaatal ah jéggi gëj a gisee. déedéet da ngay da ngay tourné da ngay tourné jàkka. lamb ñu namoon nañu la gëj a gisee. Eh, gëj a gisee namoon nañu la gëj a gisee. Ah, eh, eh, xaaral ñu def ko tàngoo bi. mbasa mbasa. mbasa mbasa waaw ayca mbasa mbasa. xam nga bay taala takk bay taala tàccu leen ko ak yéen tàccu leen ko. bay taala boo gis dañ laa takk bay taala. dellu ci mbaar bi dërët mbër bi yëg. dañ laa takk waaw sama dërët mbër bi yëg. dërët mbër bi yëg. dërët mbër bi yëg. ayca ñu dem mbër lañu wax. waaw ayca ñu dem mbër la waaw. nga ne da ngaa dugg si nag Baye Talla waaw su ma dugg si woon rek ñu ne jéggi jéggi siraat yaa war a tuus ñëwal waaw rek Baye Talla damay xool su ma ko xoolee Baye Talla xam ne lu muy wax waaw ndax nee naa la ndër nag tamak ñu nga yoroo ca maaloo ga ba ñu bëggee bari dañoo dem ci ngéwél ga waaw waaw walaay lu waay gàtt dégg dégg dégg Baye Talla acca demal ñu ne nuñ ko defee. su ma dugg see waaw est-ce que doo yëg fii si kaw ñu xool la. ñu xool ni nga defee am mbokk yi ñuy seetaan. waaw mbokk yi ñu koo xam ni naanaan la. waaw ay bés yoo xam ni. Mhm. kenn dootu ko naataam la muy jéggi sirat. waaw jéggi sirat ndeysaan ko daan. Mhm. ci rek soow ko daan. Mhm. cappanti na ko daan. waaw ñi mu daan kenn xa kenn xamul kum daan. waaw mbër la moo xamante ni bëri na ba bàyyi bëri. musta mm-hmm. daan 45 combats 45 mm-hmm. défaites. Mm-hmm. benn combat la amoon daan ko te kim daan daa màndi. Euh, euh, dëgg-dëgg mbër mi mi lay dégg. yaa ngi ci biir parle. ayca léegi ñu ñëw ah. su ma dugg si ci làmb ji rek tak waaw yi mën nañ faral. waaw ñëpp mën nañ faral. Mm. mu ngi noonu yéen googu ñu am ci man. waaw bëgg ma daan. moo may teg pression ba du ma mën a bëri. nii da ngay lox bu may léetu damay kat kati. waaw ay zone bëgg naa ci kaw. léegi ñëw ci bàkk bi bàkk bi bi nga léegi bàkk bi lenn kese la. waaw su ma a yëngatu. waaw ñëwal ku mën a tëgg ndeysaan. ñëwal dëgg ga a a bëre su ma gisee rek dëgg dëgg dëgg ko déggu ma bàyyi taal bàggal ma lii bi sànni léegi lépp bàyyi taal dañ ko tàllal loxo yi. waaw stade bi ñëpp jug ñëpp jug. waaw ma daw dé déeku. waaw. mu dégg dégg jël micro bi. waaw gëj a gisee. na mën nañ laa gëj a ñëwal rakin ca raw rakin. waaw. Ah. gis nga. dama ne leen arbitre war a sifflé. Oh, oh. arbitre war a sifflé. vraiment waaw gisuma ci moom mbër. ab arbitre laajuma la. man laajuma man xam naa ne duma mbër. man xam naa ne duma mbër boo xoolee ci man mbër da ngay nax sa bopp man xam naa ne duma mbër. bu ma soxla la vraiment kii bi la am. jour jour la ma gën a jox. waaw mais moom dafa am du ma mbër man. yéen ñu ngeen bàyyi kii mu nettali bëre bi ma ko laaj. du ma mbër xam nga ne mbër. aji ñëwal mbër laaw. lexi daam su ngeen ba pare nag gis nga ni ma nduróog mbër xelu jour laa yor Eh, looloo garaaw man de football. football ngeen a bàyyi fii eggale man jour laa woon xam nga moo tax ma bàyyi football kersa dama naan duur ba ruus mënoo nekk jour yow xam nga lan nga war a nekk léegi yéen da am discipline ci plateau bi dama ruus léegi dama bëgg ngeen noppi man laajuma leen kii laa oh. léegi bu ñëwee ba ci biir ah. ci biir géew bi mm-hmm. bi tey li yaa ngi nii amoo licence jéggi siraat boo ñëwee leen ñu lay daan doo gaaw ñu soufflé nga ñu daan la nga dem waaw ma ko tey damay daan donc damay ko damay daan waaw. ndekete capp sa filim li may bëreeg moom ñaari yoon bi may daan yëpp capp sa filim Zidoka la te ma. nga am loo laaj yow nga am loo laaj. tey capp su laaj. loolu yàgg na léegi ah. bàyyi ma ñëw dem garaaw. déedéet la rek ça va. capp yaa ngi tolloon capp sa filim yaa ngi tolloon capp sa bu ngeen la. dama wax ne mi ngi tolloon ci capp sa filim quoi demal. li may bëreeg Thiam Sofiri yëpp. Ah. Thiam Sofiri nekkati ñaari combat may daan yëpp damay prise. daan ki mu màndi nag ci xobay ki nga mu màndi s'il te plaît doo yàlla waaw non bàyyi dama ko question mu muy tontu c'est-à-dire leen ñi leen di seetaan mais am na victoire waaw non loolu ñëwaguñ ci ah. ba mu nekk ci li waaw ah, waaw may ko mu ñëw ñëwal ak ñaam bi noonu la gisee <laughs> aj ñëwal demal capp su feeling li ñuy bëri maag yow maa moom yëpp mu may daan ñaar yoon yëpp zido kaala zido kaala ok léegi bi arbitre soufflé arbitre soufflé dama pare nga mu ñëw taxaw ñu ñëw ñu taxaw ñuy léetoo maag moom léetoo may dëgër dëgër ma may dëgër dëgër léegi xam naa ne capp bi bu ma jàppee làmb ji waaw tak tak tak tak waaw mais capp gis nga bi mu ñëwee waaw fi mu roof sama tànk bi nii waaw ndekete fii poo jakartaa moom fi lakkoon quoi mu am góom oh. yow dugal tànk bi rek téye ko yow yow waaw man fii waaw dugal tànk bi ci baaram. moom mu dugal fa tànk bi rek téye ko. mu dugal fa tànk bi rek téye ko di ko ci riit. waaw di riit ci góom. kon loolu la daan mën a ni arbitre waaye bëreel waay waaye heure bi jot na waaye combat bi mag bi la ñuy soufflé bëreel waay yow. yow loolu may dem man naan wuy yaay yooyu. ci laa daanu jug taxaw ne lan wax waa koñ ba wóoy lan wax waa koñ ba. maa ngi xalaat waa koñ ba. Ah, loolu mooy indi lan wax waa koñ ba. loolu mooy indi lan wax waa koñ ba. loolu leen ok léegi ban combat nga daan. kenn laa mos a daan muy ñeexu nen. waaw. waa alimentation bee ko fay. yow ñeexu nen bu waa alimentation da ngeen laaj. daa mën nañu laaj s'il te plaît ñëwal. bu waa alimentation bi lañ tuddee drapeau bi. Mhm. xam nga ni ma bëggee rek la muy nekk Tafa. ñëw na nii ñeexukaay. ñëw taxaw moom ci ginnaaw stade ñu waxtaan ba pay ñeexu na ko. <laughs> kii su ma ko téye tey. su ma ko téye dama koy lekk dama koy lekk ma ne ko ay waay sama si rek mhm. mu ne nii tafaa tafaa xëcc ko ba mu ñëw waa mhm. alimentation ni ma bëggee fonk ma mhm. yëkkati quinze mille jox ko ñeexu na ko boo boo bàyyee mu daan la fii ba trois semaine maa lay jox reer jox la lépp jox la ravitaillement ñeexu ñëw ma ñëw jàpp ko bi ma ko jàppee ñu liitu ma ma téye ñaari badaay daan boobu boo ko xoolee sax xam na lii damaa komplo comme euh, comme comme kii ni nu mu komploo rek nu mu rëg rëg ak Bombardier ni yaa ma ko wax ni ñu compalé woon noonu. noonu laa compalé woon. moom moo ko wax. Euh, kon moom moo ko wax de. moom moo xam ne rëg rëg ko loolu laa de comme que wax nga ko de dëgg la yow lu mosoo maa wax. donc yow compaloo moo taxoon nga am victoire. compaloo moo tax ma am victoire te waa alimentation bee tax ma am ko. te ki ma yóbbu ma tax ma am ko muy laay social borom Pafa Imo. maa ngi ko baax baax laay Ami. waaw Seri Ami aca loolu loolu loolu loolu loolu loolu leer na ah. loolu leer na li ma bëggoon a xam xam naa ko loolu leer na léegi waaw léegi lu des euh, waaw lu des euh, wax ah, maa lu des concentré wu leen bi tey xool na téléphone bi tey xool na téléphone daal ne léegi ne ah, sëgg na ma ngi jël téléphone ba sëgg na xool téléphone bi bind ko man nag bi tey waykatu làmb laa woon xaaral ma ñëw yow yow dinañ ñëw ci yow. xaar may ñu tuuti rek may ma tuuti rek dañoo toll ci cas boo xam ni. Mm. cas bu xaaral euh, bu ne may ma tuuti rek may ko tuuti. bi bu ne may ma tuuti rek neen loo ci teg day indi problème. ñoo war a bàyyi ñaan. déglu leen ñi du ñaan. macha allah sëriñ Medoune Seye borom tawféex. ñu ngi koy euh, Cheikh nee na kontaan na ci yenaa ah mi ngi leen gërëm di leen sant message boobu la ma yónnee. ah loolu kay jërul woon mu la koy ne soldat ko daa wax de. Euh, on ne bu du daw. xaw ma lu ñu koy waxee. Euh, baax na de. bi tey bi tey. bi bi tey. on ne tue baax na gaa ba bañ jël parole. bi tey social. yow loo xam ci Cheikh nit ku leen damaa yàlla bëgg. ku bëgg waa Gossas mi ngi am sa tofa damaa nekk ci sa jaan bi moo tax bi tey. booy loo xam ci Cheikh. damaa nekk ci sa jaan bi loolu la gisee caabu xaw ma seer bi tey billaahi wallaahi wataay kilifa gu mag nee na mu ngi seetaan émission bi waaw mooy gaat Amsatou Faye fay Faye Amsatou Amsatou Faye borom Gosaas l'homme social doomu nday Modou mu ngi seetaan émission bi koo xamante ni gosaas gi yëpp yëpp dañu koo bàyyi xel. waaw ba nga di jël waa gosaas bu koor jotee nii sareet yi dëkk àll yi fu nekk lay jógee ñoom leen jox suukar ceeb. waaw loolu moom lu rafet loolu rafet loolu rafet la. vraiment bëgg ngeen nuyul ma Amsata Faye waaye jàppale si. Euh, alors léegi Amsata sa xarit. léegi nit ku baax léegi gars yi opposition bi daf leen nànk rek opposition bi dañoo bëgg ñu ñu ñu ñu gaaw def élection saa yi mi ngi taxaw fi mu taxaw. <coughs> yéen nag yéenay géwélam hmm? Euh, Amadou Ba bi moom lañ moom la moom la sawaay tànnoon